gannaaw naka mu. waaw nice la nga dafa mel dafa lu la métti de. waaw sama xol moo jeex. waaw la moo jeex xol bi defet bi wala. man dama xool maxi démb. waaw Guinée. biñ doole Guinée bi mu doole démb. Sénégal mhm. ñëpp a doon yooxu di jubilé. di lañ àndal. xam nga li ma wax ñoom dañ fi bëri quoi dem nañ ba famille lañ. tay fi sénégalais bu né am nga copain guinéen quoi mais dafa naasuul ñu door sénégal guinéen taxaw di civilé fi ah ouais xam nga li ma la wax man damay jël sama xaaliss diko tek ci guinéen Guinée barke Seydina mohammed rawal rawal rawal xam nga li ma la wax defet bi ñoko wara bokk quoi mais gaay waru waruñ nekk fii gars di civilé quoi d'accord léw wax nga sa metti légui yow bu lolu wéso tay nan nga gisé match bi wa mag Sadio Mané moo ko yàq ak Aliou Cissé coach bi Sadio Mané ñaar occasion mu war ko am dugal war ko dugal deug la mais nañ waxati deug même bu nekkee milliardaire dugal ñu suñu bal wa moy yoon jaajeuf grand bi jaajeuf merci soxna si ñu ngi lay nuyoo maa leen di ziar di la masawu ci defet biñ bokk. non amul problème parce que bu dee benn yoon sax yàgg nañ ñu koo defal da yàlla lii la tudd rek ñu koy sant bu baax di wax ne peut-être sax amaana lii moo gën parce que wax ji dafa bari woon trop ba nga xamante ne amaana bu ñu demoon quart de finale fa lay yem sant yàlla ñun neex na daal man de gisuma ne moo yàq match bi ci moom neex na quoi man gisuma ne Aliou Cissé moo yàq match bi jàmbaar la waaw Fall ñoo lay delloo siyaar baay yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax tur beeg sant bi man nongo laa tudd. nongo waaw mais nongo yow mel na ne am na lu la metti trop tey ci match bi nag. waaw yaakaar naa dëgg ba léegi yaa ngi kaas yaa mhm. bi bu amee defet tey mu met ñu. Mhm. waaw mais problème arbitrage la de. barke Serigne Touba Mbacke. arbitre teg na mhm. arbitrage lan la arbitre bi def. mais problème arbitrage mooy. Ismaïla Sarr faute bi ñu def si moom. pourquoi arbitre bi demul VAR. ok waaw loolu tam dëgg la. arbitre bi dafa arbitre bi xoolal. Côte d'Ivoire dafa saara te nopp bi nii naa ay vidéo moo ko woo yooyu moo loolu noonu teg neex. parce que Serigne Saliou baax mais penalty bu bu bu Côte bu Sénégal. ok waaw gars yi tey li ñu def ñoom xew yoon xam nga xam nga tey. Afrique Afrique dafa war a jóge ci pays organisateur képp ku dajeeg moom da am problème. ci ci par force la parce que ci arbitrage yi lépp day feeñ lépp luy euh, moom manam avantage yëpp moom moo am parce que boo xoolee bi ñu Coupe d'Afrique avant match yi commencer conférence de presse bi Aliou Cissé def daf ne day trois matcham mieux éviter pays organisateur mais gis nga li yàlla dogal pays organisateur bi nekk ci ay difficulté xaar matchu Mali Mali gañawul mu obligé xaar matchu au euh, Maroc Maroc gagne looloo ko indi mu qualifié donc bi mu qualifié ñëw Sénégal man mii wax ak xamoon naa ne képp ma waxal dama naan la match bi du yomb Sénégal day metti non loolu ñun ñi xamoon nañ ko man jour ma ñëwee fii ñu toog si gars yi man leen ko ñu am ñu ne ma Côte d'Ivoire mm-hmm. moom mm-hmm. ma ñëw gars ma ah, de mm-hmm. parce que GP organisateur dafa metti parce que loolu la pression bi waaw équipe bu mag la xam nga genre noonu mais match bi tey jii suñu match la woon billaahi wallaahi wa taala